boo yooyu sénégalais taxaw ne ko. maître xam nga wax naa la ko léegi gis nga ni nga koy jàppoo nii day tax doo am question. da dem monologue te du baax si yow day yàq li nga bëgg a. non non non soo bëggee defee nga gis nga maître. sa tànk ak sunu tànk. waaw parce que mbir mi en réalité prétexte bi sa personnel la. mais en réalité dafa am benn projet de développement bu ñu bëgg a jaay sénégalais ay adversaire am ñëw taxaw ma préciser sama question ma préciser sama question fan la gat sa gat sa bi toll d'accord léegi parce que man li ma gis mooy gatsa gatsa bi Pastef bu ñu doon fukk lañ hmm. daanaka mën nañu wax ne juróom-ñett yëpp ñu ngi ci kaso bi dara waaw loolu mooy non non bu doon fukk lañu la juróom-ñett yëpp ñii ñu ngi ci kaso bi ñii dóor nañ leen ay ay ay ay ay bracelet électronique dara bougé wul. nga yaakaar ni loolu. loolu taar taar la ci démocratie. non waxuma taar la waxuma dara. xam nga yaakaar ni ndam la ci démocratie. non loolu du ndam ci démocratie. nga yaakaar ni violation yooyu. détention d'acteur politique loolu ndam la ci démocratie. maître loolu du ndam ci démocratie. xam nga lu ma lay laaj. non xam oh. nga ndamu kan la. Oh. ndamu ki nga jàkkaar loolu la. ni ko mm. gàtt sa gàtt sa la dama lay rey wala nga rey ma ndamu kooku la. waaw moo tax ma ni la. waaw boo ko bëggee réduire ci loolu.

Ousmane Sonko. moom mi lay déglu sax dina ni mais waa ji lu muy wax nii. man de ma wax la je le di et je le répète Ousmane Sonko n'a jamais fait appel à la violence loolu man maa ko wax et j'assume bien mes propos Ousmane Sonko à chaque fois ñu ko attaqué lan la wax la résistance <laughs> mais quelqu'un qui appelle à la résistance mais dañuy fàttali ne en face il y a de l'attaque et puis des attaques disproportionnées Pape Ngagne Ndiaye Ousmane Sonko nga jël. mu nekk le seul acteur politique mais en termes de persécution mais xoolal li xoolal xoolal à travers les images nga gis un homme politique qui est arrivé troisième à une élection présidentielle mu participer à des élections locales avec la sa coalition il gagne les grandes villes. mu participer à des élections législatives. avec sa coalition il gagne presque la majorité de l'Assemblée nationale avec l'intercoalition moom rek convocation bi njëkk convoqué Ousmane Sonko est ce que Pape Ngagne Ndiaye noté nga fi benn incident dem na uyu ji ñu déglu ko mu ñibbiwaat këram dégg nga incident bu am fii Sénégal déggoo ko. deuxième convocation mooy confrontation Ousmane Sonko dem na ànd ak bi ñu escorté ko moo dem tribunal malgré tout dëkk bi yëpp génne nañ pour gunge ko dem na ñibbisi déggoo coow mais lan moo tax léegi Ousmane Sonko war a génnaat une troisième fois wala une fois nga ni ko non non day parce que image yu ñuy gis. sénégalais yi fu mu dugg génn ñu talal parce que moo génn saafonteeg moom sénégalais yi fu lu moom moo ko wax wan ne ka ñu sunu moom moo génn moom moo génn woote ne nañu xeex gis nga li discours bi mu def non discours bi mu def xam nga li muy xam nga lii li muy wane may ma rek ma yëgali foofu ba mu may rek ma yëgali foofu xam nga lii li muy wane en réalité ñu ko séqul ak ay gentleman xam nga nit soxor soxor maanaam nga jël une am une haine viscérale envers la personne. ba tax na sax moment yi nga xam ne ay jëlee moment de communion qu'il a envers ses admirateurs envers ses ses souteneurs envers ses militants et ses sympathisants moment yi nga xam ne c'est des de communion avec le peuple nga ni moment boobu man du ma ne may image yooyu sax di tourner nit ñi di ko gis. le fait que Ousmane Sonko jugee këram génn ci toit wu véhicule am tàllal loxo ay nit ñu nuyu ko mais loolu en quoi ça doit choquer fi woon fii mooy dem di uy ji mais jamono jooju population yëpp dañoo mobiliser u ànd ak moom. mosu fi wax gàtt. waaw léegi sa gàtt. de en tant que greffier man dem naa audience wàcc. dégg cool lan moo fa xew ñu ne Macky Sall président. Macky Sall ñi ngay wax ni ñëpp kenn mosu. la ñu convoqué woote mortal combat ñoom la ñu ñoom la ñu moom la ñu convoqué au niveau de la sûreté urbaine. man ba ma ko yëgee. wallaahi lazim si sama bàmmeel laa toog ba ma ko yëgee perdre dem rejoindre la la mobilisation parce que dama jàpp ne dañ ko war a jàppale le président Abdoulaye Wade li mu bëgg def du dëgg du yoon liñ ci liñ lan lañ ci doon tiit. boobu yaa ngi woon APR. mais dama ne boobu nekk musuma nekk APR mais dama ne la greffier la citoyen la génn naa laaj naa dëkk baa ngi réer lan moo xew ñu ne le pré Macky Sall lañ convoqué sûreté urbaine Abdoulaye Wade moo ko convoqué loolu ma ne ce n'est pas du tout normal damaa teg sama robe ak sama naa jël Moustapha Cissé Lo fekk naa ko ci buntu bi. Mbaye Ndiaye fekk naa ko si buntu bi notre dafa confrère yàlla ko yàlla yërëm taxaale ko àjja Aline Badara Cissé ABC ba bu ngoon ci biir di démarché di waxtaan ak lépp wax enquêteurs yi assister le président Macky Sall bañ fa jógee ñun tamit dañoo ànd ak moom mobilisé wu yóbbu ko ba këram Mermoz pour wax la ne la nga nit di uyu ji yoon wala nit dem di uyu ji si koo xam te ni xam nga ni seeni i mébét mooy saagaagal ngay wax yëpp d'accord naa ci saagaagal léegi comme d'accord naa ci bu jarul nga ci sori nit ñi ñëw ànd ak d'accord naa ci bakkaar nag léegi d'accord naa ci li nga wax alhamdulilah xam nga lu ma d'accordul mhm. war a wuy ji yoon di woote conférence de presse naan du ma dem egsi naa suma terminus wa génn leen ñu rey xeex Tiwaawan li mu wax mooy xeex bi yéen ñëpp ñëw leen ndakaaru wax ji du boo ko laalee dangeen ngeen di jëf mais wax jooju <laughs> mais wax jooju nga xam ne mu ngi koy wax bëgg ñëpp ñëw ñëw Dakar mhm. bëgg xeex am Dakar bëgg Dakar takk mais loolu nan ko mën a expliquer. non xam nga loolu sa interprétation la ak sa jàngat mais Ousmane Sonko li ñu ko def yëpp xeex bi ñu ko xeex violente bi ñu ko violenté. gaz ak lacrymogène tëj këram empêché ay njabootam. ñu dem jàng empêcher ay njabootam ñu dem vaquer à leurs occupations loolu du violence. mais bu dee bu mais dama loolu violence. non mais mais nit koo xamante ni. outrage laa ko gisee. non dama ni man outrage. mais xam nga outrage envers mais mais. bu ma la nee outrage kay jaru nga may wax envers kii. envers mooy ñi nga xam ne ñoo ko di defal lii mu ne defuma ko. xam nga c'est ça le problème. <laughs> mooy xam nga ñi taxaw nit defal lii ñu ko defuma ko. nga nit yoo xam ne ay takk der. taxaw ak seen uniforme. Mhm. am seen sañ-sañ ne la jàmbaar defal lii nga ne defuma ko lii laay def. Pape Ngagne ma tontu non loolu loolu noo ko mën a expliquer. ma tontu la nous sommes dans un à la loi au respect de la loi dafa am benn théorie bu ñu tuddee la théorie des baïonnettes intelligentes day day takk der yi ak fu ñu mën def pàcc bu ñu mën a féete même bu ñu leen joxe benn ordre manifestement illégal am nañ droit am nañ droit refuser exécuter ordre boobu. boo taxawee ne ma nag nit ki ñu jox la ordre boo xam ne il est manifestement illégal nga taxaw ne ma ci taxaw ne du ma du ma accepter pour suivre les instructions. venant de lan moo la wax ni ordre bi dafa illégal lan moo la lan ban lan nga mën a expliquer. ordre bi dafa illégal boo ma ma la a expliquer ordre bi dafa illégal. boo ma li tax ma la illégal. Ousmane Sonko dañ ko jox convocation ni ko ñëwal uji tribunal 24 heures auparavant ou 48 heures fan lañ teg cité kër góor gi kenn ku ñu convoqué dëkk ci biir quartier ñu jël quartier bi tëj ko dugg bi ak génn bi ñu koy filtre man mii di wax yow j'ai subi les dépens parce que dem naa di ko seeti ñu bloqué ma dama fi dugg dañu war a reçu des instructions pour bloquer l'accès à tout le monde man mii di wax en tant que avocat te am naa droit en tant que avocat ma bàyyi sama am ko euh, euh, ak sama client am entretien ci biir këram am naa boobu droit ah. parce que la profession d'avocat est un état. gàtt sa gàtt sa. waa xaaral rek loolu be loolu benn la. gàtt sa gàtt sa ñaareel ba deuxième violation. waaw ndekki nga tëj ka doomam di jàngi nga ne ko doo jàngi. waaw ah, gàtt sa gàtt sa. troisième violation nit ki nga tëj këram waxtu julli jot muy dem juma ak juma lu ñu ko wax si jullit ki nga xam ne dafa way ngëm la nga ne ko. doo julli ci juma. moom après wax na dama leen doon provoqué julli jiwuma il wax ñëpp dégg ko. wax na ni dama leen doon provoqué waaw d' sol na ay yërëm. Ah, d'accord avec de bonnes intentions d' aller prier. ok tout en sachant que boo demee dinañ ko bloqué mais ah. il voulait montrer à la face du monde. que lii li lañ def c' est violer loolu ñetteel ba ñeenteel ba. man encore des violations et des défilés de violations. maître man outrage laa gis ci li ngay non may ma rek ma yeggali nit ki ñëw taxaw juge moo ko convoqué amul benn décision judiciaire bu taxaw ne tëj neen kër Ousmane Sonko pour des raisons de sécurité. amul benn décision judiciaire amul benn mesure administrative bu ñu notifié Ousmane Sonko nekk sa buntu kër. la ko dalee ci wàll bi ak ci wàll bee. dañ prévention nag amuñu ci sañ-sañ. prévention prévenir. prévention prévention est-ce que amuñu ci droit prévenir. ma wax la ma wax la prévention. prévention est-ce que bokkul ci loolu. dama ni la xam nga prévention l'administration elle écrite. tey jii même bu dee dans le cadre de la prévention nga ko def dès l'instant que cette prévention viole les droits individuels mais la personne concernée doit être informée de cette violation pour lui donner la possibilité d'aller saisir les juridictions. de ce pays soit la chambre administrative de la cour suprême pour wax leen ni li jël ci man tëj ma c'est pas normal ñu dem lever ko loolu am na en France récemment ay ñu ay xam ne dañu ko jël benn blocus bu ñu defoon. d'accord fële ci territoire français doutre maire d'accord euh, alors la Mayotte Mayotte. maître maître jëng coow yi xaar ma yëgali rek dama ne violation yooyu yëpp am na. nga ñëw ngay dem tribunal ñëw toj sa oto nga ni outrage la. léegi nit ki ñëw toj sa oto gazé la. sotti la liquide boo xam kenn xamu ko. déet xam nañ ko. ba ba liquide bi xëy xam nañ mais moom laa lay wax. non liquide après lañ ko xam. non non non léegi loolu yëpp am na fi. violation sur violation nga taxaw ne ma. way outrage. du outrage la parce que dafa bañ ne day suivre directive yi ñu koy jox wala itinéraire bi ñu koy imposé pour mu jaar fa fan moo am ci loi bi wala ci constitution bi.

fan lañu wax ne. non non non dama ni fan la loolu am cest à ay benn nit bu taxaw bëgg a nekk ci kaw loi bi ci kaw. non non no cest à du ko neex lay def fu ko neex lay jaay. loolu amul loolu amul benn ñaareel ba xam nga da nga taxaw ne fan la nit teg ay alkaati di wax moom doo leen faale Ousmane Sonko mën nga ma génnal benn vidéo wala benn image bu ñu alkaati di wax nag moom dafa ta tontuwu leen wax leen li nga xam ne moom mooy ay droit notifié leen ko bàcc bu mujj ba ñuy njëkk a toj kan la doon waxal au bout du fil bañ ko bëggee exfiltré otoom dugal ko ci beneen oto pour yóbbu ko këram ne ko parce que y a danger devant mais la leen wax mais danger bu amee yéen yéen war a dem prévenir sa danger yéen war a dem fexe ba danger boobu <coughs> du protéger les citoyens sénégalais. Mm-hmm. mais da ñëw taxaw toj sama oto exfiltré ma ne parce que y a un danger devant et danger boobu ñoom ñooy ñan dañoo war y a des nervis qui étaient à un coin pour attendre Ousmane Sonko et attenter demee ba ay forces faire def sa constat d'après le propos de Ousmane Sonko def sa constat mais loolu mais y a problème xam nga problème bi mooy lan ñoom ñoo waroon a fekk Samba yi foofu nee na eh hmm. nous sommes dans un état de droit. loolu. te loolu nag Pape Ngagne Ndiaye bu ñu waxalee dëgg rek. waaw loolu moom mais mais loolu moo waroon am. mais au nom de quoi. d'accord ñu taxaw ne la am na ay nit yu wa jaabante. recruter ay mbër ay ay bandi ay machette. di def ay live ñu ne la toog naag doomu benn kilifa ci réew mi. di def ay live di menacer au de quoi nit ñëw taxaw ne dinañ taal këru Ousmane Sonko nit waxu ci police waxu ci gendarmerie waxu ci procureur autosaisiru ci au nom de quoi militant APR taxaw ne Ousmane Sonko dañ koo war a faat kooku tey jii mu ngi si këram xaj na sax mu ngi ñuy seetaan si émission bi alors que pour mooy que ça jàpp nañ fi ay nit d'accord yóbbu leen ci kaso bi boo mayee rek ma lim. ñi nga xam ne jàpp nañ ne yóbbu leen ci xam nga ne liste bi. mënoo ko fee lim parce dafa bëri. moo tax ma laaj la bilan wu. Mhm. raak bi ngeen doon woote. léegi cest bilan boobu tey bu ngeen ko doon wax. mais tey presque mën nañu wax ni yéen a ngi trois appui wala quatre appui. d'accord parce que non bu fekkoon non ci ci misaal. waaw bu fekkente ne da nga taxaw fëgg sa dënn ne magistrat bu ne nañu teg ay militaire wala nañu xeex wala oh. Macky Sall dina ma rey wala ma rey ko. il n'a jamais dit ça il n'a jamais dit quoi. il bu nekk nañ teg militaire si biir këram. boo ma tontu boo ma laajee rek ma tontu la. non attends. boo ma laajee rek ma nga dégg ma dégg nga naan bu ma la laajee nga nga tontu. non non seulement demee damaa fekkee sax fa waxee moo tax ma ne la ji nga et c'est très dangereux de faire dénaturer les propos de quelqu'un daal di Pam nga njaay justice bi ay magistrats xam seen liggéey ñu ngi ci sur 500 magistrats lu ñu bàyyi une petite minorité de moins de 10 magistrats Pam Ngagne Ndiaye les propos sont là il faut sortir les propos les bandes mais égale lu ñu bàyyi une minorité de 10 magistrats di def loo xamante ne nii waaw peuple bi ñu si tey ñu si ëllëg égale pour lan fexe ba fekk Macky Sall ci bëgg-bëggam pour écarte un adversaire égaleel redoutable égaleel mu ni magistrat yooyu dañoo am njaboot comme ñun dañoo am suñu njaboot waaw du ñu bàyyi nit nag di def loo xam day taal réew mi ba pare ñoom jàpp ni nit ñi ñoo si tàkk te ñoom dara du leen ci dal mais mais loolu mais loolu bu nit waxee mais mais non attends loolu c'est un discours responsable après mu ne parce que mu wane bu yeboo ñu teg armée ku nekk sa buntu kër xam nga foofu quand il le disait il parlait de sécurité. mais waxal pour ñi nga xam ne ñooy seetaan ñu xam ne loolu moo ko wax. mettre une armée devant tout domicile de ces magistrats là. en damay bañ nga jaxase waaw mooy dani. Mhm. li ma la wax léegi. waaw ne la du ñu bàyyi benn minute de bu ndaw di ñëw di def loo xam te ni ëllëgu réew mi mën na ci takk. waaw ba ay bakken rocc. Mhm. te bakken yooyu ay njabootu jàmbur lañu ñoom la ñoo xam ni. Mm-hmm. nii ni ñu yore seen i njaboot ñu siy rot noonu la yore ñoom tamit seen i njaboot. te Sénégal ñun ñëpp ko bokk. d'accord beneen bi mooy mu ni. waaw jàmm laay woote tey jàmm laay woote ëllëg. Mm-hmm. Pape Ngagne Ndiaye man bëgguma ay wax ñu koy dagg di ko sortir de sa de leur contexte. pour wax ni lii rek la bëgg a wax wala lii la bëgg a wax. beneen mooy mais Ousmane Sonko. ci buntu kër yi mais dans tous ses discours. mais dans tous ses discours mais il a eu à rendre un mais il peut y avoir des qui font correctement le travail comme il y en a des gens qui traînent les il faut loolu ñu reconnaître que partout ailleurs même ci biir journalisme bi nga nekk peut-être ci kër gi nga nekk Pape Ngagne Ndiaye peut-être yow ku jub nga mhm. mais am na ñoo xam te ji am na ñu ngi def loo xam te nii ci biir kër gi loo xam d'accord ci peut-être yaa ngi ci xuloo ak ñoom chaque jour mhm. mais bul fàttali tamit dëkk noonu lay doxee comme noonu lay doxee seetaan tamit loolu c'est très important Pape Ngagne mhm. di nga cette démocratie là c'est pour le peuple. maître c'est par le peuple. maître yaa ngi saaraan de maa ma ñëw. kon oh, bismillah <laughs> non c'est vrai alors beneen discours boo xam ni. Mhm. presque violence laa ci gis. mooy bi nga xamee ni mu ngi jàppal tànk kii di Aminata Touré.